salaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man Alioune Fall laa tudd ñu may woowee Alla président dee Damel de Tivaouane ñu ngi leen di remercier ci taxawaay bi ak teewaay bi yëpp di remercier bureau bi nga xamante ni si nii moom lañ nekkal di liggéey depuis boobu ba léegi di remercier techniciens yi di remercier joueurs yi ak euh, invité yi fi nekkoon yëpp tey boo leen gisee lii tey li ko waral mooy Damel moo doon euh, moo organisé woon

au moins ñu am aussi ay euh, ay ay ay ay ay sélection équipe nationale am ay joueurs yoo xamante ni si nii au moins ren bu championnat bi jeexee ñu dégg leen ci ci ci ci ci ci ci ci yeneen dëkk yi ñu ñu ñu signé pro loolu mooy li nga xamante ni si moo nekk objectif bi ren di ci woo bépp doomu Tiwaawan nag ndaxte am na loo xamante ni benn nit munu ko ñaar nit munu ko ñett munuñu ko mais yaakaar naa ni Tiwaawan bu ñu boolee suñu ay doole xajul ci lii quoi. Mhm. bon ba ni ni ni c'est pas encore officiel mais am nañ yaakaar bu baax à 90% que ça sera à Minam. ren bo xolé équipe bu Kaolack Kaffrine ba ben équipe bu nek Passy ak bu nek presque Tamba ñaari équipe bu Dakar lañ bokkal pool ak euh, moy Cambérène ak euh, Asfa wala FC Malika ak Asfa moy 3 3 équipe bu Dakar lañ bokkal pool yi ci dess yëpp pratiquement côté bële la bon amna ñu ni euh, Mbaye wax na secrétaire général néna équipe bu Thiès yi yéeg yëpp pratiquement jeune bobu lañu yégué d'accord ñun aussi dem nañ fa ñi ñaan yalla ñu yéeg mais aussi biñu xolé bari na ay charge trop trop trop trop parce que transport bi yoon bi gudduna te boy dem au moins pour nga performant di nga def ay au minimum 2 jours parce que fo nga dem mëna noppalu pour euh, jour bu ci jour bee ñu nek au top lolu aussi. ça demande beaucoup de moyens moo tax ñuy woo euh, waa Tivaouane yëpp ñu ñëw jàpp ci équipe bi pour loolu ñu mën ko réussir. waaw xam nga pour man message bi nga xam te moo gën a foor mooy l'acte te yaakaar naa ne ñu ngi du ñu soxla di dem ci nit yi. den wax kaay leen kaay leen kaay leen mais am na liggéey boo xam te ne bu ñu war a liggéey bu ñu ko liggéeyee ànd ci ak suñu suñu frères yi mooy joueurs yi bu ñu defee résultat rek nit ñi dina ñëw bon génération boobu nga wax aussi conflit bi nga xam te ne am na ay mag am ay ndaw. aussi loolu moo baax ndax sëñ Babacar dañuy jataay boo xamante ne si mbooloo bu ay mag kese nekk doyu ko bu ay ndaw kese nekk doyu ko mu ne ñu laaj ko ban moo ko doy mu ne bu ndaw nekk ak ay mag yàlla dimbali nañu te am nañ loolu kon ñi ngi am njort bu rafet tey ku fi ñëwoon ku fi ñëw xam dara ci sport Tivaouane presque daanaka ñi ko ŋànk ñëpp ñëpp ñëpp ba mu sosoo ba tey te nekk fii Tivaouane ñëw nañ teew kon loolu yaakaar bu mag a mag a mag lañ si am